إنني عزت بالإله المعين من جميع الأذى وكل لعين إنني عزت بالإله المعين من جميع الأذى وكل لعين سائفا عمتي لرب تعالى راجيا سقيه بماء معين sakku nu itam noo xam ne nii mooy sunu doxin teew nun de xamuñu nu ñuy àndeeg yow yaa xam noo war a àndeeg nun nag ba ni Cheikh Mat Dieng dogal dee ngi nii di ay sëtam doom ak doomi alaaj Serigne Dieng jenn suñu Abdou Dieng moom itamit sëñ Dame Dieng waa Kër Mbengue ñëpp a ngi nii laaju ci seex Mat Dieng dogal ñëpp a ngi nii laaju ci alaaj Serigne Dieng ñëpp a ngi nii laaju ci suñu Dame Dieng ñëpp a ngi nii nun nag. commentaire bi gën a lul bismillah gën a ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo jabootoo ci kër gi ñépp sëriñ bi nee na jërë ngeen jëfati nee na maam Cheikh Anta lum mas a jële fii di ko jox sëriñ Touba. ñaqu sëñ Mut Jeng ndogal ma nga ca sëñ Moodu Roqaya sëñ Moodu Maamun lum mas a jële Daaru Salaam di ko yóbbu ci kër sëriñ Touba ca kër sëñ Moodu Moustapha ca kër sëñ Fàllu ba ci kër sëñ Abdou Lahad ñaqu sëriñ Mut Jeng ndogal ma nga ca gannaaw sëriñ Modou Mamoun lépp lu sëñ Modou Rokhaya mas a jële fi di ko yóbbu ci kër sëriñ tubaa ndax ñoom ay lantinoor rek lañ defoon seen bopp maam Cheikh lantinoor la defoon boppam du tee ak diw lu ñëw mu jàllale ko ci sëñ sëñ Modou Mamoun it ab lantinoor rek la doonoon du téye ak diw sëñ Modou Roqe ab lantinoor la boo xam ne du daaw téye ak diw waaye nag dafa jël njabootuk sëñ Modou Dieng ndogal di njabootuk alaaji Serigne Dieng ak ak njabootuk alaaji Serigne Dieng def leen ay bokk defu leen rek woon ay taalibe yam ci dafa defoon alaaji Serigne Dieng muy baayam di nijaayam muy diisoog moom gannaaw bu alaaji Serigne Dieng demee àjjana mu jël sëñ Daam Dieng def ko muy rakkam muy diisoog moom bani sëriñ Serigne Daam Dieng demee àjjana mu jëm jël sëñ Abdou Dieng mii

mu jóge fa di toog ci wetu sëñ Dame Dieng. ak ñeneen ak ñeneen. noonu laa leen miine. ba xam ne lii. li sëñ As mii wax. njabootuk sëñ mu Dieng Ndogo la ngi nii. waaye nag njabootuk alaaj Sëriñ Dieng a ngi nii. kon nag. bu ñoo bu ngeen ñëwee. la ngeen andi woon daaw. la ngeen andi woon ñaaram daanaka. danaa leen wax kat na leen jërë ngeen jëfati. liggéey bi. la ci sëñ Modou Rokhaya daan wax rek. am joxal ma Serigne Touba. am joxal ma Serigne Touba. ci sonal kenn. du ma boo andee ma joxal la Serigne Touba nag. boo andee ma joxal la Serigne nag. gaal gi jóge Daaru gaal gi jóge Daaru Salaam. jëm jëm ca sëriñ Touba. lu ci waay def war lu ci waay def de war nga koo xeeb. ñàkk cee def dara nag wóorul. cee def dara daal moo wóorul. waaye nag yéen ndokk bi ngeen xamee ne. kenn ëppale wu leen ci. maa ngi ñaan. sëñ Abdou Dieng yàgg fi. ak rakkam ju baax ji. ak doomam yii. ba liggéey bii. ngeen àggale ko. fu ko seen maam yéene woon rek. fu ko seen baay yéene woon di sëñ Abdou Dieng te sëriñ Abdou Dieng suñ borom dolli ko ak wér dolli ko ak wér bu baax a baax a baax a baax rakam ji ne ci kanam njaboot gi moom it sunu borom dolli ko ak wér dolli koy xiiwal dolli ko sutura njaboot gi. sëriñ bi nee na sëñ Mamoun yaag sa rakk yëpp sëñ baa ngi leen di sant bu baax. toppante rek. moo baax. moo suñ ba waxee ci alxuraan ñu jàng ko ci alquran. ko ci alquran. sëriñ tubaa ñëw. sëriñ Touba ñëw. jàngale ko. jàngale ko. waaye nag wan ñu ginnaaw. waaye nag wan ginnaaw. jëfe ko ko. ku doonoon taawam. ku sëñ Modou Moustapha murid yëpp topp ko ginnaaw sëñ Modou Moustapha murid yëpp toppi sëñ Fallou noonu yi mooy càllale gi nga xam ne mooy dara mënu koo dog dara mënu koo dog kon nag kon nag nan gën a feddali càllale gi gën a feddaliwaat càllale gi te gën a dëgëral gi te gën a dëgëral bopp saxaar gi saxaar gi dem yóbbu wago yi. yóbbaale wago ñun ñu ne ci biir wago ya. jërë ngeen jëf. alaaji sëriñ bi naa ne ngi lay sant bu baax. di sant sëñ Abdou bu baax a baax a baax. di sant njaboot gi bu baax a baax. بيد الخيد البزير المعين وعوع السي ورفعتي وكنوزي وبي أرتجي خياد العون من بي ذا موت صعب عنيد قالوا ينلو عن موني وهو فقري وعودي وجليسي بحديث ذي المزايا المكيني أحمد العامدين أحمد خوسي ولربي بزاوة الكون يا إلهي sëriñ bi nuyoo bii bëgg nañ mu yaatu lool bëgg nañ mu yaatu lool nga tegal na ko ci loxo loxoy sëñ Modou Rokhaya ndax nuyoo bi dafa ànd ak ngërëm ndax sëñ Modou Rokhaya sëñ Fall dafa def loo xam ne ci ci yoon murit sëñ Modou Rokhaya mii rek def la ko tollante ndax sëñ Fallou bu màggal gi defee ñaari màggal nii moom la buñ indee màggal gi tuubaa moom la ndax moo nekk kuy santali nit da ngay dikk ca wetam sante ko fa sëñ Fallou waxal loolu sëñ Modou Rokhaya nag kuy ji kuy yeeslu si ak kuy siyaare ku ñëw war nga koo gërëm ndax euh, yoonu murit wépp moo ci xewal bés bii nañu daje dajale addiya yi yut sëñ Tuubaa te addiya yàgg nañ ko daa joxe dañ daan màggal fii ba màggal gi ba bët set alal sëriñ jël ñetti nit ànd ñoom di euh, yóbbu addiya mbooloo mi kenn du yëg sëñ moo doxee nag wax ne nan ñëpp nan daje benn bés dajale addiya yi yët borom loolu lu rëy la murit yëpp la ko defal ak jullit yëpp tax am na ñoo xam ne du ñu ay jullit te booy yóbbu àddiya ñu yëkkati seen barkeelu defal defale ko ci jërëjëf moom jërëjëfe suñ Modou sa doom nag jëwoon na di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi muy suñ Modou Mamoun Dia la mu waxoon bu njëkk moom lay waxaat bu ju jaay njureel gi jënde ko ak taalibe yaa moom taalibe gi moom njureel gi tey mu ànd ak ay rakam nag ak taaliba yépp di yeesu si waat di fas yéene jëfe ndigal li nga xam ne sa way juru tedd wa moo ko santaane woon ñun ñëpp nu ànd ci di ko jëfee waaye nun taalibe yi itam du sëñ Modou Mamoun jiitoo ci suñu kanam yor sunuy nos teg ko fi mu ko war a teg mu mel ni sëñ Modou Mamoun bu dee xandi yow ngay lanti noor buy sol doo tee diw gi loolu lañu wax léegi te loolu mooy lay am noo ngi koy sant moom suñu njiit li nga xam ne mat na njiit noo ngay ñaan itam yow mii nga yàgg fi nu di la ko yàgg indil nii ndax kat sag yàgg fi lu am njëriñ la to ay tool nag saa soo gisee ñu bàyyi kook jawrin dem dañoo wóolu jawrin ja yow ku sëñ Modou Rokhaya wóolu nga yàllaa la jëkk a wóolu nag moo la fi bàyyi sëñ Modou Mamoun nee na mi ngi ànd ak i rakkam ak i taalibeem di yeesluwaat joxe dañ seen bopp àdduna ak àllaxira boo digalee ñu def boo teree ñu baax soo digalee ñu def boo teree ñu baax ren jii nag dafa am loo xam ne moom rek a nu metti ci suñu yoon wii ñu sañoon lii tey day doon gaal goog ñaar a koy jàppoo ñu jëm si fii waaye du doon loo xam ne lii mel nam sàmba waaja ko yor ci loxoom rek dañoo bëgg muy gaal goo xam ne ñaara koy jàppoo ñu naan xajal nit ñi loolu lañ bëggoon jërëjëf jërëjëf jërëjëf buñ demee ba la njaboot yëpp maase woon di dajale génn kër Serigne Cheikh ja képp waxuma kër El Hadj Ibrahima Dia na dangaa génne loo ëpp loola xam ngeen ne sëñ Tuubaa bàkku waat na de moo tax 1996 bi sëñ Modou Rokhaya ne fukki million ak juróom-ñett la kër borom gaawaan dajale waaye bëgg naa bu déwénee danaa rob danaa yóbbu ñaar fukk tey jii sëñ Cheikh te képp dana romb lu ëpp ñaar fukk jëmee ko ci kër sëñ Modou Mamoun kon yokkute am na waaye sëriñ bi daa wax yéen dongo yi na leen du ma leen jëndloo oto de du ma leen tabaxloo kër du ma leen xottiloo mbubb du ngeen yëg sama soxla waaye daal kaa ñu dem ci sëñ Tuubaa moom bu jotee duutuma leen noppal ndax damaa bëgg seen aajo fajo àdduna bëgg mu fajo àllaaxira te mun ta fajoo ci lu dul ngeen liggéeyal sëñ Tuubaa kon nag sëñ Modou Mamoun sëriñ bi nee na xelam na xolam seddatina njor tamit gën naa rafet mu ngi lay fàggul nag ci lii nga indi te sëñ Samba wax ne da ngeen caa am lu leen metti ndax da ngeen a bëggoon mu nekk ay gaal yu nuy jàppoo di ko andi ku sa maam jébbale addiya benn pikini des ca mu dem ba ca dëkk ba mu nekkoon mu takkaat aw fas fas pikini ba jox ko ndaw na ko demal yóbbu ko kooku ne xam ne ba amee gaal jébbale ko waaye nag sëriñ Touba. ba ko mag ñi ne ñun de ay lantinoor lañ duñ tee diwlin sëñ Tuubaa ne leen bu ngeen dikkee ngeen fekk fi ak daam saanu goo xam ne du seen diwlin te du jaawale diwlin yi kenn ak morom de bu ngeen dikkee boo ëllëgee ma jox leen ko kon nag na ngeen xam ne gaal gii déparé Daaru Salaam jëm àjjana ca Daaru Salaam tey jaar ci loxol Serigne Touba sëñ sëñ Cheikh Anta nee na njabootuk Serigne Cheikh Dia waxu ko waxun njabootuk alaaji Serigne Dia waxun njabootuk alaaji Ibrahima Dia waaye kenn ku nekk ci yéen paasaale nga askan nee kenn ku ne ci yéen paasaale na aw askanam kon yéen seen seen bee génn na li des kay sëriñ bi ñaanal leen ngeen gudd fan ñaanal leen ngeen wér ñaanal leen taraanga ji gën a bari ñaanal leen suturu si ba gën a bari gone yi am ay xiiwal lool mag ñi yàlla leen ak wér ba gone yi mën a leen a noppal nee na niñ ko waxee rek noonu rek la deme waaye sëñ Samba waaj li nga bëgg bu ngeen di ñëw mu ne ci ay gaal ngeen di ko jàppoo mu ne yow de am nga loola ba noppi ndax sëñ Modou Rokhaya mi tàmbaliwoon woon ji nee na lim bii ngeen andi kat la njëkkoon a jox sëñ Touba kon tey jii bu ngeen andee lim booba dana mel ne ndax ñun bu ñu yóbbu lii ci gaal lay nekk ñu koy jàppoo. kon nag yéen ñi fi jëkk andi lim bi bi tàmbali woon liggéey bi yéen de faw ngeen ami gaal yéen yéen kat la sosoon liggéey bi moom ngeen andi fañ tàmbali woon bi 83 moom ngeen andi 2020 ci sëñ Cheikh ja doo nga ko andi nee na yéen faw ngeen ami gaal te day ànd ak i wér ak jàmm nag ju bare bare bare bare bare ngeen de واستجيب دعوتي وبلت وزغلي فوق ما رمت باستكا وأنيني والتزور منك بغير صلاة بسلام إلى سبيل الأمين والدعا لي سعادة والتواسعا واكتبني بي من علي الأمين والتعيذني من الأذى والبلايا والتيول للعدا وغل المعوني واكفني جملة العدا ولتحسني بك من